assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu dellu si ak yéen rek ci naaf la guddi gi guddi tay gi nag yemoo ak fukkeeli guddi ak juróom-benn ci weeru koor eh, naaf la bi juróom-benn rakkan la ci ñetti sëlmal rakkan bu ci nekk da ngay jàng fatiha benn yoon daal di jàng iza zulzilatil ardi ba saar bi jeex nga jàng ko fukki yoon borom xam-xam yi ñuy wax ni lii de ku ko def incha allah rabbi borom bi dina la jéggal sa bàkkaar waaye tamit lépp loo xamante ni ragal la wala njàqare wala naqar borom bi dina la ci musal ci àdduna ak ci àllaaxira ñuy ñaan buur bi dara teewul yàlla ñu yàlla nangul suñu koor